ba ci deuxième royal bâche trois cent tracteurs lañ jël cent cinquante fii cent cinquante fii loo xalaat ci ndékki ndékki ndékki li ñu naan ndékki loo ci xalaat rek bu subaa nga ñëw bâche jox la ci jur bu neexee yàlla ñu yonent bi Serigne Touba Khadim Rasoul kenn du moom gaay barki Serigne Touba ku bëgg Serigne Touba te muy dëgg ci ko te muy dëgg ci ko te muy dëgg ci yow barki Cheikh Bamba yaay raw say ak nu mu a demee yaay raw say baas sëñ kenn du ànd ak moom di dellu ginnaaw man dama cee xam dara damaa ñam sëriñ bi mu saf ma suukar ak lem ak chocolat naturel neex di saf ci sama làmmiñ ma ciy jëfandiku di ci am di ci bëgg business bi gën a gaaw ci àdduna mooy defal sëriñ Tuubaa boo ko defalee fukk mu fay la saar te sëriñ bi ñemewul bor barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul billaahi wallaahi taala

sëriñ Xaadim Ngom bu baax maa ngi nii taalibe sëriñ Tuubaa bi taalibe Cheikh Béthio Xaadim Ngom mi ngi nii ànd ak sëriñ Saliou Ndigal Thioune ki fi teg yaa ngi nii ànd ak sëriñ Saliou Ndigal Thioune maywa maywa ma ñoo mayma ñoo doon day sëriñ Saliou Ndigal Xaadim Ngom waaw ndeysaan allah fala gudda li mu doon li ñu mën a xam mooy ab liggéeyam moom dafa neex sëriñ bi bég na xaadim ngam sëriñ bi bég na xaadim ngam sëriñ bi bég na ndeysaan tool yi mooy yi nga xam ne bëgg nga ko ci la gërëm xam naa ne wóor na ba nga bëgg yàlla ko am maa ngi yoon danay am voilà bu jëm duñ ko ñàkk mënuñ noo tàggoo mënuñ tàggoo dugg moo tax bu ñëwoon jërëjëf góorgóorlu góorgóorlu jàpp ba teg lépp ci taanu bi suñ ko defee rek lépp ndeysaan wax naa ko sànq nee naa leen bu doon saay rek yow goro nga ci war naa laa respecté ndax yonent bi saa salaam ba ko tulli di liggéey doom day def heure bu ñëwee ba ko tolloo ba ko tulli di